coronavirus bi dafa nekk liggéey boo xam ne ñëpp lañ si war a ñëpp ñoo ci impliqué wu waa Kipeski Production ñëw fii euh, ma doon leeral mbokk internet yi loolu bu ko defee rek tey ñu ànd ci ak suñu docteur national mooy Jabira bu ko defee rek moom moo ñuy def rek rubrique santé bi tey Jabira mu jox la nga présenté wu. voilà merci beaucoup man maa ngi tudd Alioune Jabira maa ngi dëkk fi dëkk bi ñuy wax Diass particulièrement quartier bi ñuy wax Ndeng ma bokk ci ndaw ñi nga xam ne dañ leen di tàggat ci daara yi nga xam ne ñoo gën a mag ci Sénégal fii maanaam lu ci mel ni université Cheikh Anta Diop de Dakar ci pàcc bi ñi nga xam ne moom lañ tuddee faculté de médecine de pharmacie et odontologie de Dakar ma nekk ci département bi nga xam ne moom la ñuy wax pharmacie maanaam ndaw ñi nga xam ne dañ leen di tàggat ci wàllu wér-gu-yaram moo xam médecin la pharmacien la chirurgien dentiste la wala képp koo xam ne daal mu ngi ci mbirum santé donc peut-être loolu lañ amoon comme merci Diabira comme ni mu ko waxee ci euh, commencement bi tey dañuy waxtaanee santé ñu gis ne feebar bi nga xam ne moom lañ dëppee coronavirus moo dugg Sénégal mu njëkkee woon Sine en décembre 2019 ba mu ngi propage wu partout dans le monde fii ñu nekk muy Sénégal am nañ fi euh, cas ba tey jii euh, ministère bi def na communiqué nee na am nañu cinq cas docteur ci cinq cas yooyu lan nga siy wax. voilà bien évidemment cinq cas yooyu à chaque fois dañuy war a di ko expliquer ndax depuis lors moom la dafa am benn stratégie de lutte boo xam ne moom la ñëpp jël raison de plus dama lay gën a delloo si bi ngay commencé wax danga ne yaa ngi Thiès Matin News tey nga ànd ak waa kipes ki production ndax liggéey bi yéen a ko bokk tey jii loolu mooy xeexu waa Sénégal amatul noon amatul parti politique amatul sëriñ amatul docteur amatul professeur ñëpp ñoo ci war a bokk ànd ci cinq cas yi liñ ciy mën a interpréter mooy nee nañu ñetti kaa yi peut-être ay kaaw importé la non ñett ñaari cas yi ay importé la ñett yi peut-être contact la loolu lañ joxe donc juste léegi Sénégal dafa am foo xam ne foofu la toll moo tax Macky Sall jël si ay décisions pour fermer frontières yi peut-être cas yooyu noonu nekk cas importe avant fermeture bi la donc li nga xam ne moom la ñuy def actuellement mooy essayer de faire une rupture maanaam ñu dagg chaîne de contagion bi donc ci la ñëpp di liggéey wante ba léegi tamit ñu ngi rafetlu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si kaw ku si mel ni professeur Moussa Seydi mi nga xam ne moom moo géré eh, comité national bi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu épidémie bi mais également mu nekk chef si service euh, maladie infectieuse de Fann donc liggéey bi seen liggéey la waaye ñun li ñu ci war mooy sensibilisation nit ñi li ñuy gis nañ koy gëm te koy topp te topp sart yi nga xam ne ñoom lañ leen di jox donc 5 cas yi peut-être loolu mooy li nga xam ne mën nañ ko ci wax te nit ñi nañ jàppale daal instant bi stratégie bi ñu yor. mooy juste ñu jéem a xool nan la ñuy def ba canaliser li nga xam ne mooy chaîne boobu noonu di law ci nit ñi. waa docteur ci loolu rek gis nañ na Macky également andi na fi benn ndogal mu tëj frontière yi nga xam na donc avion yi foofu la ñuy jóge du dugg si biir Sénégal ñu noppi sa loolu am na benn décret bu wàcc léegi ñu ne julli jumaa yi dañ ko dañ koy suspendre xam naa waa euh, benn benn comité boo xam ne comité islamique ñoo indi loolu yooyu noonu yëpp je pense que ci xeetu sensibilisation la yow en tant que docteur lan ngay wax si loolu. voilà effectivement comme ni ma la ko waxee xeex bi noonu rek la mën a nekkee donc décision yi à chaque fois heure bu jotee rek état bi dina si def ndax état bi day jokkoo ak ki nga xam ne moom mooy ministère de la santé ministère de la santé ñoom également dañuy jël seen matukaay si mbir mi donc ñoo ngi def le tout ndaxte ñaari affaire dañoo engagé wu actuellement le pronostic vital engagé wu na mais également secteur de santé bi engagé wu na. mais également dafa am leneen loo xam ne war nañ ko séntu si kanam mooy économie bi fan lañ jëm ak moom moo tax aussi sart yu mu teg noonu fii réew mii ñu toll maanaam dëkk bi ñu nekk nii di jas actuellement gis nañ ni nit ñi ngi ciy def ay jéego yu bëree bëri bëri bëri ku si mel ni Safen assistance médicale tey bi nga xam ne man maa ko jiite ñun à chaque fois par lettre des autorités ñoom ba léegi ñu ngi def ay jéego yàggul tuuti dimanche bi passé ànd nañ ak moom Mamadou Ndione mu jox ñu oto jox ñu ñaari oto jox ñu ay gel jox ñu ay masque jox ñu lu bëri ñu tasaare ko fi nga xam ne moom mooy si biir dëkk bi maanaam poste de santé yi mais également ñu def ko si case de santé yi tey également monsieur maire ñëwaat ci xeex boobu ànd at ñun également ñu wëraat case de santé moom également mu defaale ko sax si jumaa yi même jumaa yi bi ñu fa demee tey am na benn discours bu ma doon tenir maanaam heure bu Macky Sall également yéen imam yi dañ leen di ñaan heure bu Macky Sall également waxaatee ni maanaam dajaloo julli jumaa yi sax dañ ko arrêté lu war la ay imaam yu bëri rafetlu ko maanaam donc li nga xam ne moom la suñu maam yi nekkee fii jas am dal na suñu xel pour le moment di ñaan yàlla aussi pays bi yëpp ñoom ñëpp ñu jàppee ko noonu te xam ne mbiru diine dafa am moo waral bu ci ñi ci war a wax ñu koy bàyyeek ak imaam yi waaye mbiru médecine également bu kiiwee ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk sart yi ñuy joxe nañ koy kii dajaloo yooyu la ñuy bañ moo tax ñun ñi sax actuellement mu ngi suñu xel ñu xoolaale tamit taalibe yi nan lañ war a def ak ñoom loolu yëpp ñu ngi ciy xalaat pour le moment ak nan lañ ci war a def ak moom donc peut-être loolu mooy li nga xam ne sart yi nga xam ne Macky Sall jox na ko te ñun d'accord nañ ci te ñëpp ci war a d'accord xam ne lii tamit du loo xam ne dañ ko comploter parce que benn affaire il faut ma waxaat ci également gis nga bi cas bi njëkkee am Chine Sénégal yi dañoo révolté wu ku ci nekk ne nañ dem récupérer nit ñi te tey jii kenn nangootu ko moo tax liñ leen di wax à chaque fois nañ ko gëm te xam ne mooy li nekk tey jii benn sénégalais bu ñëw rek ñëpp mere ko te bu njëkk dañ dañ dañ dañ dañ mere état par rapport ak décision yi nga xam ne jël ko ba professeur Daouda Ndiaye génn leeral ci parce que loolu yëpp dafa di loo xam ne xamoon nañ conséquence yi fan la jëm te d'ailleurs diine daf ko wax imam yi nga xam ne daje na jëm nañ dugg ci ñoom waxtaan ak ñoom ak chef de quartier dañu ne diine dafa ne mbir mi mbirul li nga xam ne maanaam feebar bu nekkee ci benn dëkk kenn warul ju jugee ci dëkk boobu noonu di ñëw fekk keneen doontoon ni dëkk boobu nga dëkk waaye ki nga xam ne dëkk fa tamit warul jubal di fa dem donc yooyu yëpp loo xam ne la islam jàngale woon na ko tey jii dañ koy gisaat également sur le plan stratégique boo xam ne nii médecine médecine mu ngi koy jàngale waaye tamit état mu ngi koy jàngale donc nañu gën a respecter li nga xam ne moom la ñuy wax ni fi ñu tënku ci te xam ne moom mooy suñu jàmm ndax bu Sénégal daanoo ñëppay daanu. dëgg la bu Sénégal daanu ñëppay daanu mais docteur ba tey dafa mel ne sénégalais yi coronavirus bi ba léegi gëmuñu ko. wala bu fekkee gëm nañ ko am na ñoo xam ne dafa mel ne dañ koy fawee docteur da ngay gis comédiens yi lu nekk la ñuy def on va de tout ou de rien sur le coronavirus bien vrai que sax. nit ñi war nañoo war nañoo mën a dal sax mais am na façon bu ñu koy defee je pense que yéen en tant que agent de santé waroon na mën a nekk d'une autre autre manière ma ñëwaat ci beneen question mooy boo xoolee boo xoolee coronavirus bi euh, Sénégal dafa mel ne gëmuñu ko te ñëw nañ Macky ñëw na def benn décision boo xam ne tëj nañ école yi boo xoolee États-Unis ñoom euh, France ñoom ku nekk dañoo tëju ci seen biir biir kër kenn génnul journée bi tey kenn génnul waa ci loolu docteur lan nga siy commentaire. waaw effectivement à chaque fois question bu nekk ak ni ñu ciy commenté waaye également ak li nga xam ne moom la ci médecine nangu waaye ñun tamit ak lan moo si suñu gis-gis en tout cas tey jii yaakaar naa ni ku yeewul war ngaa yeewu Italie référence la actuellement pour ñu mën a xool ci moom ndax li ko dal dafa yéex a jóg. ndax ab maladie bi quatre stades lay demee ñoom dem nañ ba troisième stade ñu soog see fàggandiku donc ñun heureusement Macky Sall teel na jël ay décisions ay décisions yoo xam ne mun nañ ko tuddee ay décisions yu anticipatives donc loolu dañ cee war a tënku ndax tey jii tamit suñu borom mu ngi jàngal lu bëri xaw ma ndax nit ñi ngi koy bàyyi xel suñu borom si benn mu ngi ñuy jàngal. nan la ñu war a boolooy nekk benn ndaxte tey kenn noonoowul benn noonu la ñu am muy le virus coronavirus te ñun ñëpp dañu war a ànd xeex ci beneen mbir aussi suñu borom mu ngi ñuy jàngal lan la ñu war a équiper les hôpitaux ndax tey jii kenn ñemeetul daw génn ñëpp ñu ngi jox respect médecins yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen i mbir donc yooyu yëpp ñun dañoo bëgg nit ñi nañ ci tënku te xam ne li ñuy def nii du jaaxaan ñoo ngi gis nit ñi si réseaux sociaux yi ñu siy foo ñun ñun loolu daf ñuy daf ñuy dañ siy métti lool keroog professeur Daouda jaay génn na si kaas si kaas yu métti loo xam ne mosu koo def moom professeur à chaque fois muy génn di defar ay vidéo yoo xam ne ni day sinap comme ni ko ni ñi di waxee donc di si wax lool yëpp si wàllum sensibilisation parce que ñun évalué nañ fan lañ jëm bu ëllëgee tey jii lu bëri mu ngi ñuy xaar après li nga xam ne ni mooy crise bi donc na ci ñëpp tënku te jàpp ni lii lu sérieux la c'est une affaire boo xam ne ni dafa sérieuse et il nous pour ñu mën a xeex ak moom waaye tamit pour ñu mën a gañe lii nga xam ne moom mooy coronavirus en tout cas foog nit ñi aussi seen xel dal bëgguñu kenn am si panique bu ñu kenn am ci psychose parce que loo xam ne la ni vraiment mën nañ koo dominer maintenant lu bees la également ci médecine lu bees la ci également ci médecine parce que même ñi nga xam ne actuellement ñoom ñoo ci nekk das nañ ko comprendre carrément li may wax nag dama koy tënk ci ay kàddu yi nga xam ne moom la musa Seydi di wax nee na lu bëri mënuñu ko étudier parce que keroog am na sax ay questions yu ñu ko ci laaj maanaam ki nga xam ne tane na est-ce que mën na amaat beneen contagion loolu yëpp ne nii lu ñu a étudier ñenn ñi ngi koy laaj ndax loolu mënuñu ko xam comme grippe ndax grippe dafa amoon amaat amaat à muy ñëw même période loolu la loolu scientifique di waxee ni ay preuve scientifique maanaam dañuy tënku ci loolu xam ne ah lii période bi donc yu bëri xamaguñ ko ci moo tax nit ñi nañu respecté pour le moment lenn lañ xam virus la donc germe la boo xam ne mën nañ tak si loxo moo tax li lay wax si loxo yi nit ñi nañ koy def germe la boo xam ne également mun nañ ko jël par inhalation maanaam ñu noyyi ko wala moo tax ñu war a moytu li nga xam ne suñu loxo yi di jege suñu kanam ñi nga xam ne dañuy sëkkat aussi règle yi ñu leen wax ñuy sëkkat fi nga xam ne foofu la conc bi di lemo wala tamit ñu jël musuwaar buñ ci sëkkatee ba pare ñu jël ko dugal ko si poubelle boo xam ne dañ koy tëj après maanaam dajaloo yu aussi ñu bàyyi ko nuyoo aussi ñu wàññi ko ñuyoo joxe loxo asalaamaaleykum doy na si lu yoo donc yooyu yëpp yoo xam ne la nii te jii suñu borom mu ngi siy jàngalaat lu bëri yoo xam ne jarul sax peut-être ñu koy wax mais nit ñi nañu tënku comme ni ko Macky Sall defee tënk na jàng pendant 21 jours waxuñu leen élèves yi ñu génn déjà groupe Futurs Médias Youssou Ndour également kontaan nañ ci liggéey bi muy def moo tax xeex bi xeexu ñëpp la ñun ñi nekk si village arrière yi ñu ngi si comme ñoom Youssou Ndour duñ ci nekkee donc moom également li mu def c'est très bien chaque jour mu ngi maintenir le cap maanaam chaque jour huit heures élèves yi ñi nekk jes surtout ak ñi nekk fépp si àdduna ñuy suivre li nga xam ne moom agent santé yi nañ wàcc sur le terrain pour la sensibilisation ñeneen ñi nañu tënku ci kër gi en tout cas loolu rek moo ñu mën a dimbali moo tax heure bu ñu woowee si yu mel ni tamit dañ ciy kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax voilà docteur ba léegi ñu fàttali leen ñu ngi euh, Kipeski Production ci seen rubrique santé ñu consacré ko ci euh, coronavirus ñu ànd seeg suñu docteur Diabira alors ñu ko continuer ba tey ci waxtaan bi yow yaa ngi dans la commune de Diass docteur te commune de Diass dafa nekk euh, village boo xam ne dafa exposé wu boo xoolee aéroport baa ngi fi. boo xoolee également am na benn société bi fi nekk ñu tuddee ko Van Horaire ay jigéen ñi ngi dem liggéey foofu yow Diabira euh, en tant que président euh, euh, Safen assistance médicale est-ce que yéen yéen ngi xalaat si loolu. wala bien évidemment mooy suñu thème tey ndaxte am na ñoo xam ne ni interpellé na ñu si si groupe Safen assistance médicale pour nga xam ne ñun ñu wax ci mais dafa am loo xam ne ni ay décision étatique la maanaam dafa dama lay jox benn exemple bu yomb rek Sénélec Dakar ñëpp nga fay liggéey. te pourtant ay mbooloo lañ ay nit ñoo fay dajaloo di fa dem donc lenn lañ mun a wax pour le moment dinañ fa jéem a dem quand gën a sensibiliser nit ñi foofu la ñuy yem si wàllu sensibilisation mais également ñu xool yan condition la ñu nekkee waaye tamit ñu ñëwaat ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo fi yor entreprise yooyu ku si mel ni Sia Goro dégg naa kenn koo xam ne mu ngi liggéey si ñoom am nañ thermomètre euh, comment dire thermomètre infrarouge d' ailleurs c' est que ni benn signe rek lay génne maanaam wàllu yaram bu tàng bi mais quand même dal na xel ndaxte bu génnee yaram bu tàng noonu ñu jéem la isolé donc ay acte la yoo xam ne yu rafet la mais également wàllu hygiène bi aussi am na fa ay gelang fa yu mel noonu dañuy ñaan yeneen entreprise yi nekk fii yëpp ñoom ñëpp ñu tënku si sart yooyu wante décision bi nga xam ne pour arrêt nit ñi di fa bañ a dem di ak loolu peut-être direction Macky Sall moom moo koy jël gouvernement bi moo koy jël donc yooyu yëpp dañuy xaar si ñoom mais ñun pour le moment lan moo ñu gën a soxal mooy sensibilisation te ñun fas yéene nañ ñun agent santé yi fi nekk dem xooli gars yi ban yan situation lañ nekk ak yan condition juste waxtaan waxtaan ak nit ndax lépp lépp waxtaan a koy andi lépp waxtaan a koy régler également donc peut-être si loolu la ñuy mën a appesantir pour le moment ndax amuñu loo xam ne ni peut-être ñun ñoo ko fa war a santaane donc yooyu ay décision étatique la mais quand même suñu xel mu ngi si ñi nga xam ne ñu ngi fay liggéey suñu mag yi liggéey aéroport aussi ce sont des cas xam ne dañoo exposé voilà poste de santé comme ni ñu koy defee ak ñoom ñun xam nañ dañoo exposé parce que ku jógee aéroport da ngay di faju surtout poste bii nekk jas ak keroog jël nañ si entretien ak ki nga xam ne ni moom moo fa nekk yu mel noonu daal yooyu yëpp ñu ngi ciy bàyyi xel ñu ngi xalaat également taalibe yiy wër aussi comment faire avec ñoom est-ce que du ñu yuut ay stratégie dem xool sëriñu daara yi waxtaan ak ñoom jéem a xool daal nan la ñuy jéem a def ak ñoom daal ak pour lépp daal mën a sotti ñu mën a jàppale état bi merci beaucoup. voilà donc euh, docteur ñu ñëwaat ci question yi ba tey euh, affaire bi day gën di yokku day gën di yokku boo xoolee Sénégal benn cas lañ déclaré woon te su ma ñu ngi ci 36 cas n'est-ce pas léegi yéen. en tant que docteur les personnels de la santé yéen ban ban ban jumtuwaay ngeen jël ci cas yi ñu ñu ñu wàññeeku moo gën muy yokk yow lan ngeen lan ngeen envisage ci cas yi nga xam ne day yokk rek à chaque fois. je pense que ce qu'il faut faire est en train d'être fait actuellement ñoom ñu ngi ciy liggéey ndax c'est vrai que ni am na ñu bëri ñu ñëwoon. donc peut-être dafa am ay cas yu yoo xam ne dañ leen def comme ay cas suspect di xaar peut-être développement yenn signe parce que en fonction système immunitaire nit ki yenn mën na yéex même si vraiment jox nañu jox nañu benn durée boo xam ne de 2 à 14 jours donc yooyu noonu liggéeyu ñi nga xam ne ñoom lañ jël actuellement agent yi nga xam ne ñoo nekk si communauté pour veiller sur loolu cas bees ñuy dégg nii waruñoo tiital ndax matuwaay nit ngi koy jël c'est vrai que cas yi mën na yokk comme mën nañ dem ba un jour loolu la ñuy suñu borom subhanahu wa mu yem foofu mais ñu nekkoon à contact yëpp foog gars yi xoolaat leen mooy waral lii te dafa am yoo xam ne tamit ñun ñoo ko war a jàppale médecin yi li ñu wax ni ku ko am ngir yàlla wala suuli demal nga woote numéro yi na si nit ñi woote du feebar boo xam ne da nga koy nëbb parce que boo ko nëbbee du yow rek lay lool Sénégal yëpp lay lool parce que di nga génn nga jox ko nit ñi nit ñooñu di ko joxante seen biir yooy yëpp dafa di yoo xam ne nii actuellement kiital na système de santé bi le porteurs sains également beneen problème yi ngi noonu à chaque fois on en parle ñoo ngi ciy pensé moo tax ku ci nekk pour le moment ngir yàlla war a sudu jëlal sa matuwaay donc la lutte déjà c'est individuel ku ci nekk sa jëmm bopp ensuite mu nekk collectif collectif bi mooy lan mooy le président Macky Sall le ministère de la santé les imams kilifa diine yi wala ñoom tamit kontaan nañ aussi si décision yi ñu mujj jël ndax yooyu dañ koo yàgg soxla pour ñoom ñu teeloon ko def donc bu jugee foofu chef de quartier yi maire yi ñëpp mais également la population population yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a déglu lépp lu ñu wax nañ ko def population yi bu ñu leen nee bu leen dem julli ji waruñoo dem julli ji nañu toog seen kër yi julli maanaam bu ñu leen bu ñu demati si jumaa nañ def loolu actu actuellement c'est le pronostic vital moo xam ne moom moo engagé wu donc il faut ñu bàyyi ci xel du affaire bu ndaw aussi du affaire bu ndaw na ci ñëpp concentré wu lu ci waay mën na ko ci def moo tax ñun booba léegi tooguñu à chaque fois fu ñu munti woo incha allahu rabi dañuy dem dañuy wax parce que pur la moment wax rek lañ ci mën mënuñu ci leneen lu dul sensibiliser ni ñu dégg ñu ñu bañ ñoo dégg aussi dañ koy def en tant que ay doomu dëkk bi en tant que ay doomu Thiès en tout bon ñun daal dañuy ñaan fi nga xam ne cas yi nga xam ne am na ñooñu noon yàlla na la suñu borom saafara te affaire bi yem fii bañ a yokk ndax actuellement ñëpp jaaxle nañ médecins yi jaaxle nañ ministère jaaxle nañ ni ñi jaaxle nañ nit ñi nañ ko gëm ñi ko gëmagul ba léegi c'est le moment ñu gëm ko te respecter charte yi donc peut-être lool lañu amoon li nga xam ne moom la ñuy waxaat également ci sa cinquième question boobu noonu. voilà donc euh, je pense que dañuy ñëw rek nga joxe conduite à tenir Euh, ci coronavirus bi moo xam ci wàllu sensibilisation bi moo xam ci wàllu am na loo xam ne nit ñi dañ ko gëmul woon ndax feebar bi am na wala amul et je pense que exemple yi ñuy gis à travers la télévision ci national ak international loolu sa confirme nettement que maladie bi am na n'est-ce pas docteur. oui effectivement sensibilisation à chaque fois dañ koy répéter. di ko répété te di ko répété te duñ ci mës a sonn à chaque fois dinañ ko répété incha allahu rabbi ndaxte aussi fàttali rek lañ mën a di def nit ñi mënuñu leen wax def leen ñu ñu bañ ñun ñu leen koy ñëw defloo par force donc dañ leen di mujj sax ñaan ngir yàlla war a suuli li nga xam ne teg nañ ko si wàllu hygiène suñu borom a ko njëkk a santaane a nazafatu imaan imaani donc set la ñuy ñaan na ñëpp jéem a seetal seen bopp mesure d'hygiène yi nañ ko def bu loolu weesoo li nga xam ne état bi teg na ko fi mu neex nit mu naqari nit nañu jàpp ne pour le bien de tout le monde la ñun ñëpp ñoo ko bokk ko ñun ñëpp ñoom ñoo soxla ni suñu réew mi mu développé wu en tout cas lu ñu anta nun la dans la mesure où France actuellement mu ngi ci problème Italie mu ngi ci problème Chine mooy loolu ñoom ñoo ko sax déjà ñoom ñoo commencé comprendre la chose donc ñooñu ay réew lañ yo néew yoo xam ne am nañ koom-koom asu asumaak ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk si réew bi nga xam ne peut-être demeewul noonu gis nañ hôpitaux yi li fa nekk gis nañ li fi nekk donc nañ dimbali nit ñi ñu daal ñoo ngi ñaan suñu borom subhaanahu mu gën a dooleel état bi gën nit ñi may nit ñi dégg ak topp ci li nga xam ne mooy sart yi ñuy teg ngénte yi mariage yi takk yi yooyu yëpp ngir yàlla war a sori nañ ñu ci dimbali ñaari nit mun nañ takk ci sëy mu mu kii imaam yi ñu ñu ñu avancé ñu nekk ci leneen donc yooyu yëpp mbir yoo xam ne la nii tey foog ñu bàyyi ci xel jàpp ni affaire bi affaire bu sérieux la te il nous faut du sérieux à chaque fois dama koy répété ngir yàlla war a suuri na ci ñëpp daak jàpp en tout cas man kontaan naa ci dëkk bi nga xam ne moom lañuy wax Diass parce que actuellement xàmmeetuma kii moo ne fii kii moo ne fale ñoom ñëpp actuellement ñu ngi ñuy déglu te ñu ngi daw si si ñun ñi nga xam ne ñoom agent de santé yi ça veut dire que loolu benn respect la boo xam ne ñoom ñu ngi ñu koy jox lu si mel ni DG COSEC Mamadou Ndione dafa ñëw wooñu ne ñu mbir bi jaabira actuellement yow suñu kilifa yow yaa ñuy wax ñu def monsieur le maire démb la même chose la def ñeneen ñëpp ku ci mën ci xeex bi aussi na def la même chose ñu ànd xeex lii parce que bu ñu ko xeexee tamit ñoom lañ ko xeexal seen bopp imaginel bu ñu tënkoo actuellement bi en fonction muy évolué ñu tëj lépp dara génnatul dañuy tënku bu ñu tënkoo am na ñoo xam ne amuñu doole peut-être am na ñoo xam ne am na loo xam ne réservé nañ ko économie bi daanu donc ñëppay bokk daanuloo même les riches ñi nga xam ne ñoo fi ëpp alal dañuy daanu donc loo xam ne la ni maîtriser wuñu ko déjà règles yi ñoo ñu ci mun a dimbali ñenn ñi dañ koy foowee naan ñu nit ñi bu ñuy faj médecin sénégalais naan raxasu leen raxasu leen dañ koy wax di ko répéter à chaque fois nañuy raxasu man dinaa raxasu ba sama der bi xoolee ko donc yooyu nañ ci nekk nañ ci nekk sart la yoo xam ne ni ñun on tient ça à cœur en fait donc lu am solo la te nañ ci nekk tënku pour sauver Sénégal te suñu borom subhaanahu wa taala moom mun ñoo ngi koy ñaan si barki yonent bi di ko ñaan également si barki saaba yi si barki malaaka yi mu dimbali ñu si li nga xam ne mooy balaa bi mu fi teg nii ñi si jot am problème mu mu mu faj leen ñi nga xam ne nii également amaguñ ko mu bañ a yaatu yàlla na yem fi yàlla na yem fi yàlla na yem fii ñooñ kontaan bu baax a baax si yéen ñi nga xam ne yéen ay presse locale actuellement lii lañ soxla fausse information yi nañ ko bàyyi na ñëpp di tënku si ministère de la santé yi ñuy wax nii dugg na fi génn na fi dara amu ci nañu tënku ci li ministère di teg kese espèce ñi nga xam ne am nañ ci xam-xam nañu tënk ci loolu ku ci nekk ak li nga mën doontoon ni suñu borom rek moom moo la ko may wasalaamaaleykum wa rahmatullah voilà donc euh, xam naa loolu moo nekkoon rubrique santé bi ñu àndoon seeg Diabira euh, euh, suñu docteur bi vraiment nekk na ndaw boo xam ne mi ngi def liggéey bu mucc ay bu am solo dans la commune de Diass aussi bien sur FMPO fu mu fi mu nekk ak groupe WhatsApp yi mu bokk yëpp mi ngi def sensibilisation nuit et jour ak li mu mën ci wàllu santé bi xam xam-xamam bi daal nawi si benn yoon mi ngi koy joxe kon donc dañ koy ñaanal yàlla yàlla yàlla xeeb dool yi bu ko defee rek feebar bi yàlla cas yi nga xam ne am nañ ko 36 yi ñu déclaré te yàlla na yem foofu te mu mu mu bañ a kiwaat mu nekkoon seen mbokk seen SS moo nekkoon ci présentation bi mu ànd seeg waa Kipeski production may kontaan ci sama DG bi papo bu baax a baax a baax ak ñi nga xam ne également ñoo ànd si réalisation bi ba émission bi mën a mën a jaar yoon maa ngi koy nuyu